waxtaan am na benn restaurant bu mu doon dem. nii ndépp. nii fi rek. nii laay kay. baax na waaw defal ko ñeex defal ko ñeex. defal ko ñeex waaw. dama la tudd Kibo rek ndaw si sawar mu naan man kat patron mooy oto bi borom kër yi ma ne ko mooy borom oto bi borom kër yu rafet yi kooku jabaram ci boppam moom moo feebar. man nag wax dëgg fa yàlla hmm? koor gi moom su ma sañoon dañ koy xëcc xëcc xëcc xëcc ba décembre. sama yoon nekku su leen yeboo sax ngeen bañ a tooñ sama yoon nekku si man xam naa li leen metti lépp li leen lépp xam naa li may añ te doo añ doo nga leen metti waaw mais nii la da ngeen a mën a def lépp soo leen di naan kay may añ <laughs> te man dinaa boole ñaar dinaa añ dinaa naan yéen doo leen añ sama nekk si nu ma neexee laa nu ma neex nu ma neex laa koy defe nu ma neex mu neex su ma neexee sax tooyit fii xam nga yow doo garab suba neexee tooyal la yàq ndox mi. li <laughs> may jaay ñu bëgg ma koo leba leba leb ba mu jeex du ma ko mën du ma ko nangu. xam nga dama daan def nii di sonnal sama bopp léegi nii laay def ki ma gën a jige rek. salaamaaleykum alors Sali. dama ne Sali amu fi sapatu na laa ne anamu. c'est wuy ma kii boobu bi mu demee hôpital xam nga faaw ñu samp la ay ay seen seen kurtu ndox yooyu perfection yi nga ko sampoon ba tey. moom moo jeexagul. kon tey la perfusion yi di jeex. kër gi laaj. sali eh, bu ma laalaawa. sama xaalis dafa ma. mais man doogu maa fi nekk te kër gi. kii daal bis bu set mu ñëw sama place lépp ma kii ne sa doom ji dafa feebar bés bu set ñu yóbbu ko hôpital te ci koor ah, gi. moom la sa kii boo ah. sama sa doom. ji moo feebar sa doom ji moo feebar daa feebar. non kii dafa am benn xar mu rafet mu ne ci gétt gi tàgg moom laa tuddee Kibor benn bi sax tamit ñedd ngaa la laa ko tuddee moom laa tuddee. Ah, bëgg a bëgg a lekk jàmbur moo waral nga jël sama doom ne dafa feebar ba di ko yóbbu hôpital. patron tey bi muy xëy daf ma fàtte woon a jox euh, xaalisu ripaas bi léegi xar yi ma yërëm leen moo tax ma ni naa leen wutal ceeb indi leen ma jox ko ma jox ko ma jox ko ñu amuleen luñ lekk yow yaa a dem jëlub ceeb di leen ko jox ah, xar dañoo ñàkk lu ñu lekk dàgg ba ngay dem di bëlde ceebub jàmm xar yi mës nga leen a gis ñu lekk ceeb amul amul ndax foofu man bi maa fay yóbbu boole da leen a mës a am lekk sax ceeb lii lu mu doon nii dagg lu la jot aha cey dagg doo jub dagg xiifoo maroo rafle woo dagg lu war a lii xanaa da ngay bëgg a dee ku la yàq ku la yàq sa mu dem bi laax yaay luñ ko def rek dangal na kii li ngeen ko war a def dëgg defoo leen ko ko balaa maa dee muy mel ni bayu ndëpp cëpp boo bëggee lekk lekkal sa lekk wér bi moom bu ma bëggoo man ba ma juddoo ba tey jeeg musuma yàq te jeeg musuma ak te jeeg duma ak mu yaa ngi dégg moom nga yore bor yéen ñaar ñëpp ànd leen dem ca biti ma duma ak sama kër man moom moo ñàkk fay la bindoo ni mu bindoo di leb ci sama tur waaye man xam ne moo naan tur ñëpp da man amul jot. ah kon waaw man jeeg duma ak ah, yaa yónni sa bopp moom mi ngi ma sama xaw fu mu jëm ak ñun. seen saa loxo boobu daa tam moom. seen baadoole mu doon kenn mënoo koo defar ba mu jàpp. dàgg mënoo koo jatloo. comme nag mënuñu ko jox dañu ko bàyyi mu def. sànq boo wooree balaa ngaa toog wax ba feebar. dara jar ko ci àdduna bi. saa yoo leen xëyee daal di gën a gis moom. chaque jour ma wax leen saa yoo leen xëyee rek. nañu amal vacances nag bi yoon xam nga lan lay def ñun ñëpp lay dem jaay ci aw sëy. waaw lu ne damaa feebar léegi nga dégg ne sama yaay ni mu ko jëlee paa di nga dégg ne nee ci mbedd mi sama tante bu feebar ba bëgg a. dee naa ko dóor bu mu bëgg a dee. kooku mos bu ko defee dina ko dóor bu soog ku yor lépp ku yor ku yor ay lekk kay naan kii boo dafa feebar. sa jour ñaari plat ceeb la ko daal xam xam nga daal di jox ceeb. xanaa mu yàq ma di ko lool xanaa maa mënul xaar. dafa ne rafetaayam kii dafa rafet loolu loolu. li ko defee yéen ñaar yow. loolu kay daal di subaa lu mu la amee amee na ma juróomi palaatu ceeb. juróomi palaatu ceeb ci koor gi. ñëw naa fi keroog mu ne ma patron dafa génn ma ñëwaat fi ndekete moom mooy ñëw di ma lekk kenn yónni ko mooy yónni boppam. yow yaa def loolu. Hmm? yaa def loolu dàgg dàgg li mu wax dëgg la am de. tey nga xam ne lépp dëgg la. lii xam nga ñaata la amee. juróomi téeméer la ma amee. eh non c'est fi ah. dëgg sa gémmiñ gi laa wax. waroon damm sa loxo bi nga xam. ab dammoon nga ñàkk. lii xam nga ne dama ko yëguloon moo tax nawet baax na jëlal weccet bi. patron juróomi jëlal ma jëlal. patron juróomi téeméer. ma ne noppi laa war a. yal na la yàlla fay ci weeru koor. ma ne taxawal li ci des nag. juróomi téeméer la. juróomi téeméer yi na jël li ci des lépp. na la wecc yor na wecc am na xaalis. ma ne man du ma amee kenn àq laa wax. am na xaalis na la wecc. ma ne noppi juróomi téeméer yi jëlal ma may la ko ci xol bu sedd guy. jërëjëf weeru koor la ñu nekk man taluma gàttul kenn àq yenn yi àq la yow. waay waay tëjal sa restaurant ndax àq ji mu am kat yow di nga ko ci di di di yéen a koy bokk de kon nag nit ki looy man di liggéey congé xanaa di ko jël jàng moo gis am na àllarba bul di gàddooti àq baax weeru koor dëjël rek jërëjëf jërëjëf jërëjëf kon maa ngi dem waaw kay waaw kay nga def li ma la wax léegi day na mu sama loxo bi daa mel da ko dam ay neexul ba neexul nag waaye lii ab ceeb jërëtu ko nag je merci de ma rappel ca kaw seetaan leen ko ca kaw